xam sa démb xam sa tey xam xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix. wolof xaadiriya ci senegal xam sa demb war a waxtaanee lu rëy war a waxtaanee lu yaatu tey war a waxtaanee ñii ñu tuddee xaadar senegal nan lañ fi ñëwee ak xaadariya lan moo ko fi indi boo degee xaadariya sa xel dem ci jege yonent bi sallallahu alayhi sa xel dem ci fonk lislaam sa xel dem ci bëgg diine sa xel dem ci nangoo liggéey sa xel dem ci nangoo kilifteef xaadariya nag bu ñu fàtte ne fukkeelu xar xarnu ak ñaar ca lañ ko sos te koko sos di cheikh boo xam ne Iran la dëkkoon ñu tëddee ko Abdel Khadir al Jaylaani wala fi naan Abdul Khadir Jaylaani kooku nag nañu xam ne mooy tarixa bi njëkk bi nga xam ne ci yoonu suufi moom moo dugg fii ci Afrique soow jant waxtaanam nag ak waxam ak ñi nga xam ne ñooy ay muqaddam ay ulemaam ak i cheikham ñoom seen taxawaay rëy na ci yaatuwaay bi lislaam yaatu ci Afrique xaadiriya nag nanu xam ne moom ci boppam defar na nit ñu bëri gëstukat yu bëri boroom xam-xam yu bëri nit diine yu bëri ñoo xam ne ay pël lañ ñoom ci xaadiriya lañ jaar ngir dugg ci lislaam ba am ci doole ñooña nag ñoo yëngal jamono ci fukkeelu xarnu ak juróom-ñaar ak fukkeelu xarnu ak juróom-ñett ndax ñooña ñoo tax réew yi njëkk a samp te seen njiit di doxalee charia réew yooyu samp fii ci Afrique sow jant ñi nga xam ne nag ñoo bokk ci tarixe boobu ñoom tey mën nañoo wax ne bu bundu amee ña ko sos ca lañ bokk fële ca frontière u Sénégal ak Mali ci at moomu di 1690 ca jamono yooya mën nañoo jàppit ne Fouta Djalon bu dee imama am na fa ca Guinée ca booru 1725 xadriya moo ko waral waaye nag lu mag li islaam jàpp taarix jàpp ko mboor jàpp ko muy almaamiya ba amoon ca Fuuta Tooro 1776 ñii nga xam ne xadriya moo leen nampatal ca ñoom la jaar kon ñu mën a jàpp ne fukkeelu xarnu ak juróom-ñeent bi muy jeex Cheikh Saad bu Chérif Aïdara mi nga xam ne mi ngi feeñ ci jamono feeñ boobu yàlla jaalale ko ci Abdul Xaadir al Jaylaani moom mooy ki nga xam ne moo gàddu raaye bi te booba ba léegi raaye bi fayut fii ci Afrique sow jant kooka nag di Cheikh Saad bu Chérif dara ma nga feeñee ca Odd ca gànnaar jege atum 1848 waaye ku gis turam xam limi muy tekki Saad bu Abibi mooy mbégum baay xam ne kii laataa muy ñëw waajal nañ ko loola nag moom moo tax Cheikh Mouhamad Fadel Ould moo ko téyel boppam tàggatal ko boppam waaye lan la ko jox xam-xamu alxuraan lan la ko jox wirdu waaye wirdu woowu ba ko ko joxe daf ne ko nag am na sañ-sañu joxe ko kon man ne ca ba muy ndaw Cheikh Sadibou Habibou ci ñaanu juram bu nangu la dem ca Trarza ca gànnaar sow jant mu daal di fay toog nag la ko yitteeloon mooy yaatal lislaam tax xamale lan mooy xadriya kon ñu mën a jàpp ne am xam-xamam tax na turam gën a law waaye tur woowu la mu law moo indi mboolooma yokk mbooloom taalibe yokk tariixa bi di yokk traza dem ba àdduna bépp di fa ñëw di fa gëstu si xam-xam aku yiw Cheikh Saad bu Chérif Aïdara kon mën nañ ne moo yaatal jóge traza ba agsi rogaatal Sénégal diggante 1872 ak 1913 nañu jàpp ne moom ñëw na yoon yu bëri ndar ak yeneen dëkk yu bëri loola moom moo tax mu am taalibe yu bëri ca ndar am leen ca kajoor am leen ca bawol am leen ca jolof am leen ca fuuta am leen ca Casamance am leen ca Gambi Cheikh Saad bu moomu ñuy waxtaanee tey ay dara wa xayartu nañu jàpp ne digganteem ak Seydi Hadj Malick Sy digganteem ak Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu kii nga xam ne mooy raaye bu mag bi Tijaaniya am fii kii di Muridiya diggante ba rafetoon na rataxoon na ndax Cheikh Saad ay dara nitu teraanga la woon te nanguloon na leen ñooña it nangul ko waaye nag ba mu delloo Nimzaat ba toog fa fële ca wetu Rosso ca gànnaar ci atum 1909 foofa nag la ubbee daara yu mag ya daara yu bëri ya nitu gànnaar nitu Sénégal nitu Mali nitu Guinée ñëpp riir wuti ko ngir lan jàng alxuraan ngir lan xam yoon ngir lan xam nu ñuy tëggee ay taalif ngir lan xam grammaire. kon nag mën nañoo jàpp ne moom ci boppam luy njiit njaaga te mooy njaag mën nañoo jàppit ne nit boo bëggee xam dayoom nam toll da ngay xool ñamu defar nan toll kon moom ay téeméeri téeméeri téeméeri muxaddam defar na leen xoola rek kenn ku ne ca ñooña fa mu dal fa mu toog ubbi na fa jant boo xam ne lislaam ma nga fay bellee Sénégal gii rek mën nañoo jàpp ne Cheikh Ibnu Arabi lii ca Thiès ci moom la soqi ko Cheikh Ahmadou Lo bu Mbuur Cheikh Cissé Boraba bu Kër sàmba Dia Cheikh Dethié Lo Seck bu Nguraan bu kenn dul fàtteeti cheikh Ibrahima Codé Seck bu Tiwaawoon cheikh Moussa Camara bu Gàngeel cheikh Ahmadou Ndiaye bu Lobudu cheikh ba mar Guèye bu Dakar ci ñin mën a lim ñii ku leen defar xam nañ sa dayoo num toll. keroog nag ba mu jeexalee liggéeyam matal ko wara a wuy ji boromam ma ngi ko defee fukki fan ak ñaar ci weeru juillet 1917 ca Nimzaat foofa lañ ko suul loolu tax nag Nimzaat doon dëkkub siyaare doon dëkkub barke doon dëkkub yiw. bu koor gi demee bay bëgg a jeex bu la daamari rombee di riir di dem bu laaj fun jëm nimzaat lañ jëm bu la nit ñu baax ñi rombee di daw bu laaj fun jëm nimzaat lañ jëm bu la taalibe yi gëm yi rombee di dawul bu laaj fuñ jëm nimzaat lañ jëm ana ku ñuy ziyaare ji Cheikh Saad Bou xayartu ana ku ñuy ziyaare si mooy ka noppalu woon 12 juillet 1917 Cheikh Saad Bou Aidara moomu nag bàyyi na ci ginnaawam ay téere ay téeméeri téeméeri téere yu mu bind téere yooyu mën nañ cee jukk yi nuuru siiraat fil ilmil tasawufu nga xam ne moom lam ci tëgg ci ay bayit kenn xamul num toll romb na juróom benn téeméeri jëm kow am na téere boo xam ne mi ngi tudd nuzaatul ubaat nga xam ne dafay wane mbégtem ñi gëm tey jaamu yàlla am na téere boo xam ne mi ngi tudd nasiha nga xam ne moom téereb digal la ak wax nit wan yoon lay jaar cheikh boobu nag nga xam ne ci téereem yu bari yooyu wax na ci nu ñuy àttee wax na ci mbóoti lislaam wax na ci ni ñuy fajee yaram wax na ci nu ñuy dundalee nit wax na it nu alam mi ak kéewaay nga gi war a tëddee kooku kenn mënu ko fay moo tax ñu nettali jaar-jaaram ci xam sa démb xam sa tey cheikh bu kunta moomu nag ku ne tarixa da nga ko tudd da nga ko lim kon mën nañoo jàpp ne ay doomam ci ay tànkam lañuy tegu am na ñoo xam ne ñëw nañ ba géewul ñu toog fa tey diggante Louga ak euh, Kébémer képp ku dugg géwul xam ne liggéey ba yàquwut ndax sët yi mujjewuñu puso ba mu réer ay dara karaara noonu la ko mag ñi di waxee xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant abu Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Goethe Institut